fukk ak juróom-ñeenti cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxaso woon ak ñu yoro doomu jàngoro ji amuñ ci benn ka importé maanaam ku jóge bitim réew waaye am nañ ci fanweer ak ñett ñu tuddee ka communautaire ñooñu mooy ñu jot ci mbas mi fekk xamuñu fiñ ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu seen lim nii la tëddee ci ndakaaru ak li ko wër am nañ fukk ak benn yu tëddee nii ñett ci maris benn ci Almadi benn Barak Cambérène Cité Mixa Diamniadio Kër Ndiaye Lo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 fanweeri malade ñoo nekk réanimation juróomi malade ñoo ñàkk seen bakkan bu su démb altine ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak malade yi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak juróom-ñett ak juróom téeméer ak ak juróom-ñett ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak juróom-ñaar